nee nañ foo teg ca tànk foo teg sa tànk te sujootu fa ngir yàlla jaan màtt la loolu am na ñu koy wax di wane rek lim jaamu yàlla lu nekk mu defal ko yàlla ba yàlla yëkkati ko mu nekk ca xadara ba nekk ca malaayika ya waaye ci benn seconde ñu beppi ko ba ne ko génnal uxruj minha fa innaka rajim ci benn seconde loolu lu mat di bàyyi xel la ci jullit bi wala ci nit ki lu def mooy yàllaa ko ne defal mu bañ te ba mu koy defal mu bañ te waxtu wam ko koy defe waxtu waxtu waxtu wala te it bokk na ci li borom xam-xam yi wax nee nañ iblis bi koy yàlla bi mu yàlla waxee malaayika yi ne nañ sujjóot te mu nekk ci biir moom daf doon seet kan moo am sañ-sañu yàlla na defal mu bañ a def muy toog nag di seet di xaar ba xam kan moo du sujjóot far moom ni muy toog na di seet ku dul sujjóot ndeke moom sujjóotut kon séntu ëllëg séntu lii ñëw danay tax tey raw la parce que su fekkoon bi ñu ko waxee rek dafa bàyyi woon xel ci ndigal li mu xam ne waxtu woowu la am mu topp lañ ko def waaye mu ngi seet ba xam lii ñëw dana tax li nekk tey raw la bam ko defee sujjóotut bi ko bi mu sujjóotu yàlla ne ko ah yàlla it nag mbugalut ko ci ñàkk sujjóot daf ko laaj نقول يو لوتخ سجوتلو بو فيكون بوبا توبون خامن خلات ألك ولا خلات لي نيو تخنا با تاي راوكو مو توب لولو كون يالا دوكو ديف دارا واي رك دافا ري تفوفو لا بروبليم مي كون بير مي كون نيكو تي شيطان مي ني ناخ نون waye mu ci leneen li gëna xoot ndax shaytané mom ba muy moy yalla amutone shaytané gu ko nax iblis mooy njiitu seytaane yi moom ak soldaaram yi muy àndal huwa wa qabiluhu yaraakum huwa wa qabiluhu min haysu laa tarawnahum waaye moom mooy njiiti seytaane waaye moom bala bala moo nekk njiiti seytaane yi dafa moyoon yàlla li taxoon mu mooy yàlla amoon na lu tax mooy bànneexu bakkanam ñu bàyyi suñu xel ci loolu moom mooy moom mooy li gën a garaaw te dañ koy not ci weeru koor iblis yàlla ne ko lu tax mu ne ko a asjud duma ma du ndax kii da ko bind ci lii bind ma ci lii kon am na am na rëy gu nekkoon ci moom yàlla ne ko uxruj minha kon génnal ci teraanga ji nga nekkoon génnal ci xadara bi yow ku ñu rëbb nga tey cax woowu cax woowu soo ko bëggee firi doo ko mën a firi ci lu ëpp nga xam lan mooy secret topp yàlla topp ko pur iblis génn bi muy génn sax ndeysaan yàlla daf ko jéppi ba pare xaw ko yërëm nee na yàlla waaw maa ngi dem maa ngi dem nag yàlla ne ko waa demal fa maa laka an tatakabbara fiha parce que li xew mooy man kenn du ma jaay rëy waroon nga maa bañ a jaay rëy daf ko daf ko jéppi ba pare waaye mu ko xaw a yërëm waaye nag dogal ba dem na foog nga génn iblis génn na kër yàlla bi iblis di génn tax iblis génn bi ñuy bi ñuy wàccee iblis am na kuy yéegal bi ñuy dimoot iblis am na kuy promote mooy kan mooy suñ maam aadam aadam mu ñëw rek yàlla ne malaayika yi su jotal leen aadam ci lañ dimootee iblis xoolal moom itam yépp su jotal ko xoolal malaayika yi rek mala al malaayika mu muqarraboon nga xamante ne yàlla rek la ñuy jaamu yàlla ne leen jaamu leen su jotal leen kii man su ma ndigal ñu sujjootal ko moom it mu yaakaar ne moo ci ne moom Adam waaye benn seconde rek ñu ne ko wàccal ihbitu minha fa imma yatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaaya fala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun aadam mi nga xamante ne moom la malaayika yi sujjootal ba ba mu yaakaar ne moo ci ne te loolu nekk nekk tagg nekk dayo bu rëy nekk teraanga boo xamante ne kenn mësu koo am mu yaakaar ne affaire am baax na moom itam ci seconde ñu ne ko wàccal génnal àjjana uxruj ihbit minha na nga wàccee ci teraanga ji ngeen dem ca suuf yaa sa say njoboot fa imma yati yannakum minni hudan danaa leen indil ak njub te mooy téere yii may jox yonanti yi fa man tabia hudaaya képp ko ko topp falaa xawfun alayhim wala hum yaxsanuun képp ko ko topp doo am njàqare waa lu tax aadama moom itam teraanga jooju ñu ko jox benn seconde rek ñu jas ko cax ku koy firi moy, ki xam secret top yalla kon mbir mi mu ngi ci ne la defal nga def mu terangal la mu ne la defal nga bañ mu wacce la mu ne la bayil nga bayyi mu terangal la mu ne la bayil nga def mu toroxal la yalla ci bopam moy def nonu <coughs> bo xamé nak <coughs> yalla moy def nonu nga sa xel ci yalla motax bimay يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا سورة النساء يلا نينا نغين كو توب توب يونتم بي توب نيم لين بولين كون لان موي توب يالا توب يالا بوكاي ديف دو سي خام لي باسي ولا لي نيو وقت ويغا ام am فخه بوكو نينال walaka saatu lati anta fiha li passé man la dimbalé man nga ko yobbo nga am ci nakar ba top gi nga wara top tay bu ko nénal bu féké né benn la nga fexé def ko bakaru demb da danay tax nit nek waliyu motax moy yalla leg leg da ngay am njëriñ leg leg mu am njëriñ parce que leg leg nga moy yalla mooy yalla go xam si ngay jógee dootoo ko moy ba faw di tukki nag ci jaamu yàlla ba nekk lu rëy nga xamante ne boo defutoon mooy googu doo ko am kon bàkkaaru démb fàttaliku ko ko wala fàttaliku li passé pour yóbboo ko tey la yàlla subhanahu wa taala wax na ko yonent bi tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum nee na ko danaa la nettale ñi passé waaye nag ñooñu passé nañ bu leen gestu ba tax nga tardé tey waaye da nga ko nga yóbboo ko maanaam ñu am doole ña nekkoon démb di ma foxantoo man yàlla la ma leen def ak yonent yi ñu daan tooy la ma leen def dama la ko wax pour yow itam nga bàyyi koo xel tey la waaye walakin laha maa kasabtum li ngeen li ngeen di def tey loolu di toppee waaye kon li passé démb fàttale ko ab bàkkaar buy tax sa tey nga góorgóorlu ci ba war de fukk danay tax nit yàlla jëlee ko ci bàkkaar bu garaaw def ko mu nekk wali yu tey danay am kon ñu xam ne topp yàlla mooy li nga xamante ne mooy moo bàppi iblis moo bàppi it suñu maam aadam kenn ki tuub ñu baal ko kenn ki tuubut ñu ñu ñu ñu rëbb ko lan mooy topp yàlla topp yàlla mooy inqiyaadu li awamirillah Música